ñaanu wëli yu rafet da nga cay bokk bu xasee dugg ku bëgg rafet da cay bokk te góor gi ci wàll boppam mas na ma wax ni ma de sengoor mii de buñ ko bëggoon a daaneel it duñu ko mën ba ma ko wax ci lamiñam li ma ko mën ndax àgg na nag moom ñaan ci ñaan foo xam ni daaneel suñu bopp moo gën a yomb nu daaneel ko waaw te itam loolu tubaab yi xam nañu ko ndax ci guerre 14 ba ñu jàqee ba jàq dañu ñëw fii ci cheikh alhaaj malik ni ko dunu bëgg nga dem ca bàmmeelu yonent ba ñaanal nu nu gañe guerre bi ñu leen am naa ngant dem nag wante mën naa leen yónni ku mel ni man waaw nga xam ne bu demee bu ñaanee mu nangu incha allah te la soga tànn nag ku ko fa demal ba ñu demee ba Maroc ñu jël Cheikh Sukayrij àndandoog moom dem ba ca bàmmeelu yonent ba ñaanal fa France ndax ñu gañe guerre bi walla def ca ndam te it maa ngi koy wax ak benn tubaab bu miin réew mi maa nga dajeeg moom ci UNESCO ca Paris bu di ma nettali temps yi mu nekkee Ndakaaru ba di ma nettali bombardement bi ci amoon ba ñëpp daw génn Ndakaaru mu muy yéem nag ñu yàlla may mu di leen yéem ndax booba dafa fekk Serigne Babacar nekk tëngéej naka la bal yi tàmbale rek mu ni fokk mu jëli jóge tëngéej pour ñëw ndakaaru mel ni tubaab yi nag dañu d'accordul ci loolu won ko ni ko bakkanam toll na foo xam ni daal lu mel noonu duñ ci mën a d'accord ak moom li ñu doon bëgg kay mooy mu d'accord ak ñoom ñu dem Tiwaawan waaye jëm si ndakaaru boobu duñ ci d'accord wax leen nag ni kon dana xaw doy waar parce que zawiya ba ca Tiwaawan moog zawiya ba ca Majino bokk ndey ak bay bu ngeen yeboo comme bii ma gën a jege ngeen bàyyi ma ma dem ca booba rek dana waaye biñ koy werante ci suñu biir nee na général bi jékki-jékki ni mu yéen teen ko bàyyi mu dem Ndakaaru rek mën naa am bu fa àggee yàlla rus ko yëf yi sedd waaye itam noonu la ko yàlla defe ba mu demee ndakaaru ba ca buntu këram doxe tànkam ba ca jàkka ja julli fa ñaan fa la yàlla def jàmm pour wax leen ni ba àdduna sosoo ba lii lépp loo am te leeru yàlla ak kaddu mag ak ñaanu ku baax ca bàyyi ko waaw loo ko jëriñoo mukk waaye lépp lu baatu mag jiitu leeru yàlla jiitu ca borom ndigal jiitu ca booy ba nga ko waaw